Ecotra nekk entreprise boo xamante ne bii ci bâtiment ak travaux publics lay liggéey bëgg a ci entreprise yi ñu gën a ràññee ci Sénégal gën ko ràññee ci Afrique loolu moo waral lépp lu mu mënoon mu def ko pour am matériel bi bi war am personel bi war li mu jën jënd ci ay machine ëpp na téeméeri machine li mu yor ci ay nit yuy liggéey ak moom ëpp nañ juróom benn téeméeri nit loolu lépp pour tabax Sénégal moo tax loolu moo ñu boole ak pôle urbain de Diamniadio bi nga xam ne assainissement bi ak VRD ñoo ko yore moo ñu boole ak Ageroute ba xamante ne tali yu bëri ci réew mi ñun ñoo ko yore boole ñu ak sayet ba tax aménagement yu bëri ci dëkk bi ñun ñoo ko yore boole ñu ak communes yi bu ci mel ni commune de Thiadiaye ñu yore taleem yi donc loolu lépp pour tabax Sénégal loolu Abdoulaye ak si la gëm si loolu la ñu nampatal si loolu la ñu taxaw waaye li muy liggéey lépp li ko ci gën a ñor li ko ci gën a ñor moom Abdoulaye la mooy Touba li ko gën a ñor mooy sëñ Touba loolu moo tax at mu jot ren di ñeenteeli at ñu ñëw fi mu ne nañu bàyyi lépp lu ñuy liggéey lu ñu am ci matériel ak lu ñu am ci ah nit nañ ko indi Touba taxaw ci liggéeyu Touba fexe ba Touba lu fi nekk te waru fi ne ci ñàkk set ci ndox muy taa ci tali yu baaxul nañu ko regle ba balaa bésu màggal gi lépp nekk ci yoon loolu lañu ñu sas di yëgal sëñ bi naka moom Ablaye Sylla léppam moom la Mountakha léppam lépp Ablaye mun Mountakha moom kese la sëñ Touba kese la li mu ñu sas mooy lu ñu man ak lu ñu mënoon nañu ko def ba Touba màggal gi bu yegsi na fekk lépp normal li ñu amoon ci matériel yëpp indi na ko fi li mu amoon ci personnel yëpp indi na ko fi gradeur yaa ngi fi des bulldozer yaa ngi fi pelle yaa ngi fi camion yaa ngi fi nit ñi leen di doxal ñëpp ngi fi moto pompe jënd nañu fi ay pompe yu bëri yoo xamante ne bu ci nekk war na toll ci cent vingt mètres cube heure ñu ngi nii ci seen gannaaw lépp pour jëlee fi ndox mi defaraat yoon yi euh, def liggéey bi nga xamante ne moo nekk ci biir université bu bees bi mu ŋànk ŋànk zone bi nga xamante ne mooy zone jumaa ji ak poste de santé bi danañ ko defaraat bu mel na ko sëñ bi bëggee incha allah dëkk yi wër Touba yoon ya fa jëm yëpp danañ ci taxaw ba dem bi ak dikk bi du am benn gàllankoor ci biir màggal gi fu ndox taa ci dëkk bi dana nekk suñu yitte fu tali dagg ci dëkk bi dana nekk suñu yitte loolu lépp dinañ ci taxaw bu sobee suñu borom di ñaan sëñ bi mu dolli ñu ñaanal ba lii ñu samp ngir bëggal ko lu lu lu lu dëppoo ak bëgg-bëggam bi mu bëgg defal sëñ tubaa yàlla jàppale ñu ba mën ko defal. ci seen kilifa gi ngeen bàyyi ko muy Ablaye lay sëriñ bi mi ngi gërëm. sëriñ bi mi ngi koy sant di ko gërëm. ko xamal ne mi ngi koy nangul lim ko wax lépp di ko ko jàppal. di ko xamal ne mi ngi koy nangul lim ko wax lépp di ko jàppal. mooy doon waajuram. mooy doon waajuram. doon ab sëriñam. doon ab sëriñam. dox diggam ak sëriñ Touba. dox diggam ak sëriñ Touba. di seereel liggéeyam bii sëriñ Touba. di seereel liggéeyam bii sëriñ Touba. liggéey bi nag li nga wax alfa. liggéey bi nag li nga wax alfa. ñeenti at yi ngeen fi ñëw yëpp. ñeenti at yi ngeen fi ñëw yëpp. man ngeen ko doon àndal. man ngeen ko doon àndal. ñu dénk ma. ñu dénk ma. ma jiite mbooloo mi nga xam ne. ma jiite mbooloo mi nga xam ne. dañuy setal dëkk bi. dañuy setal dëkk bi. ak di ko defar. ak di ko defar. di ko waajale màggalug Serigne Touba gi. di ko waajale màggalug Serigne Touba gi. ñeenti at yooyu nga wax. ñeenti at yooyu nga wax. lépp noo koy ànd. lépp na koy ànd. bis bi fi délégation ECOTRA njëkkee ñëw. bis bi fi délégation ECOTRA njëkkee ñëw. maa ngi leen recevoir woon ci kër góor gi ma Ndiaye Jong. maa ngi leen recevoir ci kër góor gi ma Ndiaye Jong. jëloon engagement yëpp. jëloon engagement yëpp. comme ni ngeen ko waxee. comme nii ngeen ko waxee. ngeen defee ko noonu. ngeen defee ko noonu. andi matériel bépp. andi matériel bépp. li ñu bëggoon a def lépp. li ñu bëggoon a def lépp. ngeen jàppale ñu. ngeen jàppale ñu. ba mu yomb. ba mu yomb. te fekk na booba. te fekk na booba. ñu tàmbalee am tuuti jaaxle. ñu tàmbalee am tuuti. jaaxle jaaxle. ndax màggal gi. ndax màggal gi. tàmbalee dugg ci nawet bi. tàmbalee dugg ci nawet bi. ñu daal di xam ne kon. ñu daal di xam ne kon. at ya ko njëkk. njëkk. dañ doon setal rek. dañ doon setal rek. léegi nag dañuy boole setal. léegi nag dañuy boole setal. ak tàng ndox. ak tàng ndox. ak sëkk. ak sëkk. kon mu ñett liggéey yu kon mu ñett liggéey yu bokkul. waaye bi ngeen ñëwee. waaye liggéey yooyu yëpp bi ngeen ñëwee. jàppale ngeen nu ci. jàppale ngeen nu ci. bañ am ci résultat bu rëy. ba am ci résultat bu rëy. bu rafet bu rafet.